ci lu jëm ci wàllum politique ñaawlu nañ bu baax a baax mën yi nga xam ne dañu koy daal di salfaañe yéenekaay gi délibération nee bi nga xam ne ñoo gi di 24 heures ñu xëy fekk fa Ibrahima Lissa Faye nee na nag liberté de presse loolee maanaam duñu ko négocier yéenekaay gi de l'info nee na ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi démb ci seen doxam ñaxtu bi wax nañu seen naqara nee nañu nañu libéré journaliste Pape Alé Niang yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na bëri na taskatu xabaar yoo xam ne ni ki démb wane nañu seen naqar ci mbeddi ndakaaru yee waaye tamit bëri nay gox ci Sénégal yoo xam ne journalistes yi nañu fa ay doxi ñaxto fu ci mel ni ci ndakaaru ci Thiès ci Sédhiou ci Diourbel yéen kaay gi di yor yor xëy xibaar naan ñu taskado xabaar yi ni démb bëri nañu lool forte mobilisation yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu démb ñoo ngi woon ci mbedd yi Mamadou Oumar Ndiaye taskado xabaar nekk directeur publication yéen kaay gi di démb ca ndaje mi daan na yëkkati kàddu nee na bii nga xam ne moom laa yëkkati message la boo xam ne message sub Sidy Lamine Niass la ak Babacar Touré Ibrahima Bakhouma di ba jàngalekat ci lu jëm ci wàllum tasum xibaar moom nag nee na benn journaliste boo xam ne andil nañu ko ay ñol-ñol nañu jàpp ne mbooleem taskado xabaar yi la ñu andil ay jafe-jafe yéen kaay gii di Vox Populi nee nag bu ñu waxante dëgg taskado xabaar yi réussir nañ li nga xam ne moo jëm ci seen wàllug mobilisation journal bi di 24 heures bàyyi mbir moomee yóbbu ñu démb moom la doon voté ab budget ma voté nañu budget ba xayma nañ ko si ñaar fukki milliards yéene kaay gii di li ñu fekk fa Abdou Mbow nee na député yi nga xam ne bokk ci ku jigee ñoom bu ñu nekkee commission dañuy ànd ci li nga xam ne mooy budget bi waaye nag bu ñu demee plénière tas ko do xabaar yi toog fa la ñu nekk di ko contre maanaam di xumbala yéene kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna démb bu football maire bu Kaffrine ba pare ministre nga yéenekaay gi du Source A Abdoulaye Seydou ni ko démb ma ngi ci lu jëm ci modernisation site religieuse yi waaye tamit daanay tontu Guy Marius Sagna daan koy wax ne ko man Abdoulaye Seydou Sow am na sañ-sañ bëgg football waaye na Guy Marius Sagna ngir sa information jàppal ne amul lenn loo xam ne fédération bi ñoo ngi ma koy jox football sama passion la yéenekaay gi de Libération nee na Assemblée nationale débat yi tàngoon na jër waaye nag lu jëm ci wàllum budget au conseil des primature tamit jàll na budget présidence tamit jàll na gi di Sud Quotidien wax ci lu jëm ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko yéene kaay gi nee na démb Sidi Ahmed Mbaye déglu nañu ko doyen de juge Maham Diallo moo ko daal di déglu yéene gi de Les Échos nee na déglu la boo xam ne déglu bu gàtt la ndax quelques minutes rek la ñu déglu Mohamed Mbaye bàyyi ko ñibbi yéene kaay gi di enquête ñu xëy fekk fa ministre Abdou Karim Fofana ministre bi ñu dénk wàllum njënd mi ak mi maanaam wàllum commerce nee ci juróom-ñaar fukk ak juróoma maanaam 75 pour cent d' application yéen i kaay gi de la turbina nee na sa diwaanu Kolda foofe nag bëri na ab drogue boo xam ne taal nañ ko fa waaye tamit produit yoo xam ne baaxul bi ñu ko xayma toll na ci 364 millions maanaam ñetti téeméer yu fekk juróom benn fukk ak ñeent ci ay millions yéen i kaay gi de la sa nee ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur primaire bi jamono ji mer nañu ba mara détail yi liggéeykat yi ñoom jamono ji li nga xam ne moom la ñuy sàkko mooy démission Pape Sagna Mbaye nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllum napp gi waxtaan wu yaatu ak groupe de musique bi tudd nag Twenty Family Twenty Family ab groupe la boo xam ne maanaam ay waykat ñoo ko séq waaye nag ñoom bëri na loo xam ne leeral nañu ko ci biir journal bi nee na ñoom groupe bi ñoom ñëpp ñoo bokkoon benn classe lycée bu Rufisque seen ànd bi ànd bu yomb la ndax déggu ñu seen biir na nañu leeral ci seen inspiration ak seen style musical wax na tamit ci lu jëm ci seen i projet yéen kaay gi dee esat xëy di ñu xibaar naan ñu forfait bu Sadio Mané ci coupe du monde bi loole nag jooyloon na tanière bi Kalidou Koulibaly daan nay wax ne